docteur Oumar Boun Khatab Thiam euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. anesthésiste réanimateur nga. retraité ci uh-huh. fonction publique waaye yaa ngi liggéey ba tey nga uh-huh. jiite itam alliance nationale pour la sécurité des patients ñu ngi am mbégte uh-huh. lool dalal la ci matinalu tey bi waaw docteur ñuy waxtaane ñaareelu vague coronavirus bi euh, surtout cas grave yi ak contamination yi ni mu bare ban jàngat nga def ci bile ñaareelu vague euh, ak surtout euh, ni ñuy traité cas grave yi ci Sénégal mu bari lool ñu ci ñàkk seen bakkan juróomi téeméeri bakkan yi rot romb nañu ko am na léegi ñetti fan waaw euh, merci ci invitation bi ma def euh, sawar ci wax lool lii gisoon nañ ko parce que euh, amoon na benn émission bu ma animé woon ñuy wax système de santé ma nekk suñu système de santé xarañ na mais pour xeex feebar bi fi nekk bu ñu bàyyeeku amoon nañ ay jéego bokk boo kaa yi commencé wàññeeku mais bu ñu bàyyeeku bàyyeeku bi ñëpp xam nañ ne léegi fu mu féetee mooy ci niveau communautaire loolu ñu avantage boobu ñu amoon eh, ñëpp engagé wu léegi dañoo bàyyindiku les mesures barrières yu ñu waxoon ñëpp di ko daan en tout cas ñu ci bari daan ko respecté léegi gars yi gëmatuñ ko gëmatuñ ko donc finalement problème bi mi ñu nekk foofu ci commune euh, communauté bi mm-hmm. parce que cas communautaire yi bari nañ te hôpitaux aussi hein ñu jàmbaar lañ ñu ngi def lu ñu mën lu ñu am la ñu mën a joxe lan lu ñuy disposer infrastructure équipement yu ñu am mm-hmm. loolu lañ mën a joxe mm-hmm. lan lu ñu am loolu lañ mën a joxe si ne lan lañ fekk waaw léegi problème bi mooy xeex bi mooy bu ñu accès hôpital fexe def prévention prévention mooy mesure barrière yi buñ ko xeet waaw donc euh, loolu la dañoo dañoo demoon ba naagu. boo bàyyeeku affaire yi ñëwaat ñëwaat. ñëwaat mhm. sànq maa ngi lay wax euh, cas grave yi euh, prise en charge bi tam ñu bari dañ ci am xel ñaar ñàkk xëy na ñoŋ gi moo tax bakkan yu bari di rote ni nu ko nemmeekoo jamono yi ndax yaakaar nga ni dañu am jafe-jafe justement ci traitement wu cas grave yooyu fii ci Sénégal. dana am jafe-jafe jafe-jafe mënu ci ñàkk jafe-jafe mun parce que nee nañu. nit ki boo dee liggéey te amu jumtuwaay yu doy dara doyul muy ci garab ci consommable wala muy ci équipement wala muy ci personnel ah loolu moom foog mu sooxe na loolu yàgg nañ ko ne système de santé bi dañ ko war a renforcer te ci côté yooyu en tout cas dundu tay di ko wax ah, côté yooyu la sooxe du doy nag mais ñuy spécialiste war a def année réanimation mënoo ko former ci ñaari fan ñett fan benn weer benn at non mënul nekk ay at la waaw donc euh, ci tembe tembe bi loolu personnel bi doyul mm-hmm. équipement yi mënuñu doy donc loolu moo fi nekk. d'accord alors yow yaa jiite itam euh, li ñu naan alliance nationale pour la sécurité des patients maanaam kaaraange ñiy faju euh, moom ngeen di toppatoo. Euh, lan mhm. nga xalaat justement ci vaccin bi ñu annoncé nii dinañu ko defal ñëpp balaa njeextalu mars deux mille vingt deux. waaw ñun dégg loolu suñu xeex mooy sécurité. Mhm. bépp luy faj d'accord nañ ci mais faj ak sécurité. Mhm. xam nga dañ ci war a boole. waaw parce que du caaxaan waaw ci combat bi te dañu ci war a boole parce que war nañ ko saytu. Mhm. da nga toog déglu expert wu Sénégal yi. Mhm. luñ ci wax ñu valider ko alors ñu bokk ci combat bi pour que population sensibiliser leen ak ñëpp ñu ñu ko war a jël ñu jël ko. Hmm. kon su ma la déggee yow bokk nga ci ñi seen xel dalagul ci vaccin yi. suma xel. damay taxaw position digg doomu lay taxaw. dalagul hmm. da gisuma lu ko dalal. Hmm. waaw. ndax lan. ndax ci yi waxagul experts yi. très bien du man du suma domaine mais fii am nañ ay experts yoo xam ne ku ci nekk sa domaine sa liggéey. Hmm. mais lu tax ñuy ne pat patar pourquoi jóguñu jël affaire bi saytu ko étudier vaccin bi daal di prononcé. waaye ñun duñu duñu ay ay nekk à la traîne de ay pays ay France ak yooyu ñi nga xam ne wala dañuy ñëw di ñu imposé man musuma nangu ku ma imposé mm-hmm. li ma gëm mooy nañu gëm sunu bopp suñu santé ñun ñoo ñun euh, euh, souveraineté sanitaire dañ ko war a am mm. waaw ana suñu suñu suñu yi jàngi ana suñu expert yu am xam-xam yu gëstu. Hmm? d'accord affaire sida professeur Mboub ba may commencé ci laboratoire am. Mm-hmm. le Dantec. Hmm? benn focus la woon. Mm-hmm. dafa gëm boppam. ba trouvé euh, comment dire deuxième virus boobu. Mm-hmm. suma kanam la dégg nga donc il faut que sénégalais yi. jël seen responsabilité waaye boo déggee ñu la professeur nga nekk di kii il faut avoir éthique hmm. déontologie ak responsabilité waaw. kon daal yaakaar nga ni bu ci euh, boroom xam-xam Sénégal yi euh, defoon euh, taxawaay wi war buñ ko ci amoon askan wi jeexi jaaxa bi ñu nekkee ci vaccin bi dana deñ. dana dalal sama xel. Hmm. parce que man su ma feebaree du ma fajoo fenn fii la mun a fajoo mhm. alors jàngi naa bitim réew ñëw na fii kon fii moom moo soxal mhm. waaw li ñuy wax ak bitim réew ñoom la engagé mhm. mais buñ koy indi naa ko naa ko saytu d'accord te bu boobaa it alliance bi nga jiite danañu dugal seen loxo ci sensibilisation bi kooku su fekkee leer nañu ne suñu experts yi teg nañ ko fu wóor valider nañ ko danañ dugal ñun ñoo jëkk ci terrain bi sensibiliser ñun sécurité la li ñu dox mooy lii aar santé ah wérgu bakkan sunu sunu sunu sunu population c'est pas une alliance pour le pour les autres pays hein, mm -hmm. de la France c'est une alliance pour le Sénégal leer na alors da nga gis ne euh, tey li ñu tuddee guerre des vaccins mbir la moo xam ni xëy na dafay màndargal ni yenn réew yi ñu wax ni dañu am doole ñu naan leen puissance euh, dañu nekk ku ne di bëgg euh, am dara ci mbas mi coronavirus bi ñu nekkee. bien sûr yeneen réew yi. Mm. nit toujours na sa xel di tey. comme ñoom seen bopp seen biir ñu ngi ñu ngi koy wax ñu ngi. ñu ngi jiixi jaaxa mais ñun aussi am nañ droit i jaaxa mais na ko experts yi saytu teg ko fu leer mm-hmm. te bañ subir benn pression nag waaw. d' accord docteur ñu wax ci tey euh, lii di système sanitaire bu Sénégal euh, wala sax politique sanitaire bi euh, lu ci bari dañuy dégg jafe-jafe jumtukaay ak xëy na mën a def loo xam ni daal urgence la nekkoon nga chef bloc opératoire bu service urologie hôpital la Dantec tey lan nga jàpp ni daal moo waral ñuy am yile jafe-jafe ndax suñu kilifa yi ñoo jëlul wér yaram def ko muy farata ci seen politique de manière générale kilifa yi sax donte am nañ bébét. Mm. waaw xam ma. Mm. Ah? yéene maa ngi fi yaakaar. yéene amoon yéene parce que président Macky Sall. Mm-hmm. Ah, du pour wax lu ko neex wala pour kii ko man nekkuma ci yooyu. Mm-hmm. Ah? wax def na fii am na yéene pour def santé priorité am waaw gratuité yi am na yéene pour def ko. CMU taxawal na ko fii mm. deux cent milliards ah wax na ne def na ko ci santé wax na interpellé na ministre de la santé sama ci benn réunion bu ñu nekkoon le mm. ministre de la santé def naa ci santé de plus de deux cent milliards gisuma ci kii suma xol dëggu ci kooku nag yéene boobu mun nañ ko ko nangul nangul mm. mais aussi il faut que la mise en œuvre ñu koy évaluer ñu koy saytu li nga ci def doo toog fan na toll ah mbir yi ñu koy natt infrastructure am na problème yàgg nañ ko ko wax. Mhm. équipement am na problème ressources humaines loo moo gën a amati problème. Mhm. il faut que yooyu ñu koy saytu toujours ndaxte. Mhm. boo amee defee te fi nga war a def defoo ca. te priorité am am defoo ko fi am priorité mais day day soxe amoon na ay jamono ci ci gannaaw. su suma benn professeur bu ñuy wax professeur Pape Touré démissionné ci conseil d' administration bi bu bu bu bu dalal jàmm. Mm-hmm. parce que tout simplement dafa contrôle ne di woon urgence pour ñu tabax centre de procréation. Mm-hmm. wala greffe de moelle àndoon naa ceeg moom parce que xaalis bi ñuy jëwoon pour. Euh, faire face mbas mi amoon na yeneen urgence pour que hôpital boobu newoon nañ ne am yu bari manqué na fa woon mm-hmm. pour mottali yenn yenn yenn yenn service yenn équipement ak personnel ak ressources yi kay foofu lañ ko waroon dugal pour que hôpital bi mun a def loo xam ne hôpital bu normal ñu ngi koy def mm-hmm. balaa ñoo xalaat loolu naam ah mm-hmm. procréation am na njëriñ greffe de moelle am na njëriñ waaye si tembe tembe fi ñu tolloon alors c'était pas du woon. Euh, farata du woon urgence farata. Mm-hmm. Euh, yaa ngi wax ne itam Sénégal euh, am na yu bari yoo xam ni tàmbali woon na ci def ay jéego yu solo waaye dafa mel ni dañoo dellu ginnaaw loola docteur lan nga jàpp ni moo ko waral. xam nga Sénégal moo di loo xam ne ci biir Afrique ah, lépp loo gis xalaat tañ ko lépp loo gis xalaat nañ ko document yi kii nañ ko def nañ ko ci tiroir sunu naataango yeneen réew yi dañuy wax ne les sénégalais nous quand on a bu ñu soxlaa sunu système de santé dara def ci dañ ñëw jël du sénégalais yi xool document yi bi doon dem appliquer ko suñu dëkk. kon daal fii dañuy xalaat waaye duñ ko doxal. duñ ko doxal ci gàttal. Hmm. waaw doxal bi moo des boo demee document yaa ngi nelaw ci tiroir yi foofu. waaye yeneen réew yi ñooy ñëw jël ko ci ñun dem appliquer. Hmm. ñu gis résultat. loola de jàngoro la moom. ah jàngoro mooy suñu jàngoro réew. naa léegi noonu koy saafara nag ci sa xalaat. niñ koy saafara gis nga loo gis dañ koy saytu. Hmm. il faut système de régulation. Hmm. il faut ko ñuy xool ah, nit yi càmbar càmbar toujours suñ toll xool lan nga def lan nga kii lan laa lan yow nit bu ma la tegee ci poste. Mhm. dama lay jox ay objectif bu bu bu ma la yox ay objectif bis ba ma xayma la def nga ko wala xayrun defuloo ko ma jëlee la fa. teg keneen. teg keneen Sénégal dafa bari ñu xarañ ah. Mhm. koo ne yaakaar ne xarañ na am na ñu ko gën téeméer yu koy yu xarañ ko mhm. nga teg ki ki yelloo poste bi nga teg ko. kon il faut mu am il faut ci doxalin wi leer na. santé moo soxla rigueur. noonu mm-hmm. la demee su dul loolu dañuy def ay milliards. Mm-hmm. du ñu am dara yëfu caaxaan yi non non santé du caaxaan. Mm-hmm. jërëjëf docteur Oumar Boun Khatab Thiam euh, amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni anesthésiste animateur nga à la retraite ci fonction publique euh, jiite tey alliance nationale pour la sécurité des patients nga nekkoon fii tam euh, njiital bloc opératoire bu service urologie hôpital Le Dantec. merci